Euh, suñu gan niñ leen ko doon waxee boobu ba léegi euh, Cheikh Oumar Sakho la moom ingénieur la en génie civil euh, sëriñ bi Sakho ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. Mhm. léegi dañu bëggoon a ñëw rek ci li nga xamante ni moo xew fële ca Tivaouane. Ah. muy ab hôpital ba mu tàkkee fukk ak benn ci ay tuutànk ñoo ci ñàkk seen bakkan. ñu ngi joxoñ nag baaraamu tuuma affaire installation yu ni mel yow en tant que ingénieur génie civil lan moo tax yii bu amee rek ñu joxoñ soit installation wala mbiram courant ndax bu ñuy tabax yooyu duñ ci bàyyi xel ci wàllu étude. voilà merci beaucoup bon euh, souvent tabax dafa am yoon bi mu war a jaar euh, balaa ngay tabax lu mel ne hôpital da ngay def li ñuy wax cahier de charge. nu nga koy tabaxe ak nan nga koy tabaxe loolu boo koy defar ci la ñuy préciser tous les corps d'état ciment bi xeer yi ci dem fer bi ci dem électricité bi ndox mi cahier de charge bi moo lay tënk ni nga ko war a liggéey te cahier de charge bi ñu koy def c'est des hommes de l'art maanaam mooy ñi xam liggéey bi des ingénieurs Sénégal fii am nañu ay agence comme euh, AGETIP comme AGEROUTE comme euh, l'agence de construction des bâtiments et édifices publics qui sont qui sont pourvus d'ingénieurs très compétents cahier des charges ñoom ñoo koy tënk léegi bu ñu ko tënkee ñu lancé appel d'offre bi entreprise yi tontu entreprise yi mënuñu tontu leen lu dul ci cahier de charge bi bu ñu ko tontu ba kay ba ba ñu ba ba liggéey bi commencé chantier bi est suivi par un maître d'œuvre maître d'œuvre bi mooy bureau d'étude bu nga xam ne bi ingénieur bi day dañuy seet est-ce que cahier de charge bi li nekk ci cahier de charge bi moo nekk li ñuy tabax. mooy dosage ciment bi mooy qualité fer bi mooy câble yi mooy tuyau ndox yi diamètre yi loolu lépp dañ ko war a tënk bu ñu ko defulee maître d'œuvre bi mooy kii contrôle champ def ko nii def leen ko nii cahier de charge bi wax. maanaam dafa laaj rigueur. voilà dafa demander rigueur câble courant itam c'est quelque chose de très délicat. il faut beaucoup faire attention ci qualité câble yi parce que cable mun nañ ñoro te bokkuñu te souvent c'est les économies que les entreprises font dañuy jëm a sakkanal ba. ah voilà léegi ñuy jël cable de de de deux virgule ou trois virgule ils mettent un câble de un alors qu'ils sont payés pour deux loolu nag dafa demande contrôle kan moo war a contrôler maître d'œuvre bi parce que une fois bu liggéey bi commencé bureau d'étude day ñëw contrôler du ko fay mukk waru ko fay mukk. te respecté wut de charge te respecté cahier de charge. Ah, euh, alors. am na ku lay laaj fële euh, waa. Euh, ah? Cheikh Oumar li ma bëgg laaj mooy bu ñu defee liggéey boobu li ngay wax. ba noppi dégguma ah. bu de charge boobu nga doon wax bu ñu ko respecté ba noppi. Ah. Euh, yaa ngi yaa ngi dégg uh-huh. voilà bu ñu ko respecté ba noppi ba tabax ba mu pare ah. laataa ñuy tàmbali di ko jëfandiku ndax am na euh, koo xamante ni day ñëw taxaw tam ni liñ ci santaane woon ñëpp baax na euh, ñu joxe kay ndax loolu am na tam bon cahier de charge bi bu ñu ko defee pare mm-hmm. c'est ñu d'habitude agence yi ñoo koy defar comme AGETIP comme AGEROUTE comme l'agence de construction et bâtiment euh, édifice public ñoom ñoo koy defar. Mhm. c'est des c'est des c'est des jeunes ils très compétents. et souvent ils viennent moom la ñuy wax le maître d'ouvrage délégué maître d'ouvrage mon na nekk ministère de la santé parce que moom moom ouvrage mais daf koy délégué AGETIP mbaa délégué ko agence de construction des bâtiments la mbaa délégué ko AGEROUTE alors tu as vu c'est une équipe mooy saq projet bi c'est une équipe d'ingénieurs et de techniciens ñooy seq projet bi. lu tax ñuy seq projet bi parce que ñoom seen bopp seen seen documentation yi ñu yore ça permet de réaliser des projets comme ça. parce que ils sont ils sont outillés pour ça voilà. non seulement ils sont outillés intellectuellement. Mm -hmm. mais ils sont aussi outillés sur la base des documents qu'ils possèdent des archives qu'ils possèdent. boo leen di centre de santé yi voilà centre de santé problème problème problème mais fii nag li ñu gis mooy yaa ngi koy wax sànq da ngay gis soo xam ne ñu lancé appel d'offre benn entreprise gagné marché bi suutale te ko keneen. je sais non le problème qui se pose actuellement au Sénégal euh, mais li ñu dañuy dañuy ministère bu nekk am na service infrastructure. Hmm. c'est pas bon. parce que un ministère même boo amee sa service infrastructure du dépasser ñaar mbaa ñetti ingénieur tu peux pas faire l'ensemble des travaux du Sénégal avec ça c'est pas possible mmh. c'est pourquoi agence yooyu ñu créé leen ko moo tax ñu créé ko hmm. d'abord elles sont elles sont formatrices mmh. et puis deuxièmement aussi il y a de la qualité il sont exigeants aussi parce que moi j'ai travaillé avec eux ils sont extrêmement exigeants. mais bu Tivaouane bi dañ ne AGETIP. bon Tivaouane bi bon vraiment bon AGETIP loolu mais. est-ce que bon moom la ñuy wax mais est-ce que fi lakk-lakk bi amee est-ce que du rajout. maanaam ñu dolli ci yeneen yeneen yeneen branchement yoo xam ne prévoir uñ ko. waaw bon je ne sais pas parce que moi je c'est pourquoi hier. Ah ah. moi daal je suis intervenu hier. Mm-hmm. c'était pour vous dire que bon voilà parce que démb maa ngi doon déglu. Mm-hmm. Euh, ni may déglu ni ñu ne waa mais il faut faire un audit Senelec moo ko war a def diwo ma ne ko bon ci la intervenir ci seen antenne mhm. pour woo leen. pour nii leen que Veritas mhm. que Veritas. ou bien Veritas c'est bureau de contrôle international. Mhm. de certification ou bien Alpage ñoom ñoo mën a ñoom ñoo outillé pour ñëw voir de façon indépendante lu xew. kon enquête boo doon koo bàyyi ak Senelec kese. techniquement non non non techniquement non. Senelec mën nañoo def enquête am mais j'aurais souhaité man en tant qu'ingénieur que Veritas dugal ci loxoom ou bien Alpage ou bien GI euh, SIG de Alé Diouf. parce que euh, Chérif. Mm-hmm. Mm-hmm. ci wàllu euh, courant. élect Senelec ñoom posé compteur. loolu moom mooy seen liggéey mais l'installation intérieure est de la responsabilité du propriétaire. bon maanaam installation bi ci biir. Mhm. yow mi defarlu du Senelec mooy ñëw di la poser courant yaay wut sa électricien donc lu ci bari. ci côté boobu la ñuy def liggéey bu nga xam ne mooy loolu am na ko ñoom ñoo war a euh, contrôler conformité bi ak yu mel noonu est-ce que loolu mi ngi am ci suñu bâtiment yi parce que lu ci bëri coupe circuit la ñuy wax. moom moo causé euh, incendie sax causuel yàggul. voilà je je je j'interviens je je reviens encore sur le problème des agences parce que les agences les agences d'inter qui interviennent pour l'intérêt public. c'est les marchés, c'est les hôpitaux, c'est les écoles, c'est les universités. C'est-à-dire, c'est pour, c'est les édifices publics. Mm-hmm. bâtiment nguur. ah bërita nguur. parce que bâtiment nguur bokkul ak sama man. parce que bâtiment nguur dafa am ay normes yu war am na fu mu di lance di installer courant bi y une réception qu'on fait. La réception est faite souvent. Si c'est les agences qui ont lancé le produit pour faire la réalisation, ñoom danañ ko fekke ki surveille travaux yi ba le maître d'œuvre dana ko surveiller entreprise bu def travaux itam dana ko dana ko fekk. bu ne installé courant. ah waaw dañ ñëppee ñëw ñu ni bon courant ñu ne lan la ñuy waxoon ñu ni nangam nangam nam câble bi dimension bi nangam bu pare on signe un PV pour dire que ah travaux électricité yi. li ñuy prévoiroon li la def ñu ni Senelec vient lancer le jeu Senelec boo ko xoolee day ñëw vérifier su amee ay écart Senelec ni ñi ah def leen nii comme ci kër yi rek mhm. mais au lieu mu nekk entre les clients et la Senelec c'est la Senelec et le maître d'œuvre et le mhm. maître d'ouvrage de waaw mhm. euh, euh, euh, monsieur Sakho ci service bu mel ni néonatologie est-ce que dafa am ay matériel yoo xamee ni mën nañu créer euh, luy àndi court-circuit électrique bon matériel bi li koy nii souvent mooy section câble yi bu la imposer une section donnée nga def moins <coughs> tu peux faire moins mhm. s'il n'y a pas de contrôle tu gagnes beaucoup plus d'argent mais la qualité laisse à désirer mhm. c'est pour que le contrôle est une exigence de ces projets c'est une exigence. d'abord câble yi bu ñëwee en plus beaucoup livre ci terrain bi d'après mon expérience on réceptionne d'abord les câbles waa ji bu indi day jël câble ñu ne ana câble ñu indi ñu mhm. ñu xool est-ce que ça correspond aux sections demandées si ça ne correspond pas ñu ko dégager ko si ça correspond On dit ça correspond. On accepte de réceptionner le matériel sur le chantier. Beaucoup commence poser temps, on le suit. Parce que mun avons changé cable câble entre-temps. <laughs> Pour dire que c'est un travail très méticuleux, surtout affaire propre. On affaire d'or. Parce que chaque fois que ça, il y a un crash, ça crée des problèmes. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mm-hmm. Euh, euh, monsieur Sakho dégg nañ directrice hôpital bi moom nee na lu ci mel ni ay détecteur de fumée ay extincteur ay simulation sax def nañu ko. tàggat askan yooyu yëpp léegi yow ci sa d'après votre expérience yooyu yëpp bu amee ci euh, tabax boo xam ne daanaka motul at sax wala ci la ci la yem lan moo lan moo waral lu ni mel. ay jéey alors je je vous j'ai un ami une grosse société de gaz. ça c'est expérience que je vous. alors il avait. le système de, voilà, de, ah, de détecteur d'incendie, de trucs comme ça. Mm -hmm. ah, et c'est directeur général depuis presque deux ans. Alors, il s'est dit, mais quoi, moi, des secteurs de trucs comme ça. Bah, non, je, bah, je, ne sais même pas si ça mhm. il a fait une simulation. dañ koy wax ci wolof nit ñi comme. voilà dafa def moom dafa amoon usine gaz. Mhm. am installation ay extincteurs et tout ça alors un jour mu danaa def simulation danaa def comme. comme si lakk dafa am. voilà test quoi. Hmm. mu mu lancé kii bi. alerte personnel bi kenn bougé wu. son équipe bi nekkuñu en place. mais il a fait des sanctions. Mm. c'est-à-dire même boo installé un de temps en temps war nga hmm. def ay simulation. Hmm. c'est pas au docteur ou bien aux infirmiers de faire ça, c'est au maintenancier ou bien, c'est pas, à, à, à, à quelqu'un de créer une structure comme ça. ñu mhm. ñëw de temps en temps ñu def une simulation. simulation mooy lan mooy bo am naa un secteur am naa ay sirène am naa ay ay ay alarme voilà ay alarme mais j'ai dit bon. pourtant ñoom def nañ ko je me réveille tey def nañ yi def nañ def nañ ay euh, simulation euh, def nañ ko d'après li directrice bi wax nee na def nañ loolu lépp. mu ne mu ne mu ne def. Eh, wax mooy euh, loo am matériel ak loo def def simulation li ëpp solo mooy ressources humaines bi. ñu def liggéey bi ñu war a def. parce que yaa ngi koy wax sànq avion tamit su demee ba am ay paan bay waaj a daanu pilote bi rek moom moo ko mën a sauver ci xam-xamam fii tamit su ay lakk su demee bay am. ña fa nekk su ñu waroon def liggéey ba ñu waroon def peut-être que du yegg si fii. bon c'est euh, sur ce cas précis vraiment de de de Tivaouane je pas je peux pas te parce que xaw ma lu fi xaw. c'est pourquoi encore j'ai di il faut ngeen jël ay bureau technique. mais li nga wax nii avant la mais bu ñu demee ba bâtiment pare bi comme ban livre koo pare parce que des fois jafe am ci wàllu courant bi ñu war a maintenance beeg yu ni mel est-ce que suñ koy defaraat aussi dañu war a reconduire même procédé bi parce que am na yoo xam ne comme ni ko ah, waxee bëgg si si bëgg lu yomb mën naa tax nag bu ñu jëndaat fil pour ah, defaraat nga def li nga war a def lépp da ngay dem assurance décennale. da ngay dem. nga assuré nga assuré sa bâtiment bi. Ah, ok alors pour assurer sa bâtiment bi Veritas ou bien Alphage day intervenir parce que assurance bi dana ko ne d' accord naa euh, d' accord naa. Mhm. assurer sa bâtiment mais il faut que Veritas. contrôler contrôler benn ma lii mën nga ko assurer parce que assurance bi tam du dugg comme ça day seet. boo ko Veritas vérifié ba baax ñu ni bon assurance bi temps la nga assuré mais souvent duñu ko assuré parce que ils n'ont pas le cachet de Veritas ou bien d'Alpage ou bien de loo xam ne état ko moom kay xanaa ah, problème assurance warul posé. bon ci ca de charge bi ko war a def ni ko bon bâtiment bi bu pare d' abord y' a ñaari réception la y' a la réception provisoire nga ñëw nga ni ko bon bâtiment yi par la kaay lañ dugg. un an après ngeen ñëw xool est-ce que bâtiment bi ñun avec l'AGETIP am nañu projet yoo xam ne bi bu ñu paree on fait la somme provisoire un an après ils nous appellent on revient on regarde ñu ne bon nii ak ak ak avec l'entreprise ñu ne entreprise bi defal lii defal lii defal lii defal lii. bu ñu defal waaw bu ñu defalee loolu nag ñu procéder à la réception. définitive. monsieur Sakho. Euh, euh, pour euh, maanaam jéey yu mel nii bañ a am. Ah. dafa am ñaari mbir yu am solo muy la prévention maanaam fagaru balaa dara di xew. te loolu mi ngi aju ci ne ñu am jumtuwaay yu mucc ayib. am bâtiment yu mucc ay am ay service incendie ci barab yu mel ni que euh, barabu euh, fajukaay yi beneen bi ci des mooy intervention maanaam bu jéyee amee ñu mën ko circonscrire ca na mu gën a gaawe ci côté boobu yi tamit il faut mu am un dispositif bu nga xam ne daf fay nekk ci loolu est-ce que tey euh, waruñu waat càmbaraat suñu nekkin suñu doxalin ak suñu yorin ci wàllu infrastructure yu mel ni hôpital man ci sama xalaat moom euh, depuis hier, je réfléchis là-dessus. Je trouve qu'il est temps que dans les hôpitaux, ay investissement un milliard de trucs comme ça il faut que ñu am ay maintenanciers. pourtant am na ah. hôpitaux yi am na ay maintenance maintenancier boo demee ci usine souvent le maintenancier il vit les installations il vit tout mm. tout ce qui est infrastructure bon y a des infrastructures comme les fissures des trucs comme ça c'est des trucs qu'on peut détecter et puis nga defar ko mais affaire courant affaire ndox. Mm-hmm. il faut que le maintenancier veille. je ne sais pas si vous allez une fois est-ce que euh, ngeen dem aéroport par exemple c'est des c'est cars ay cars ay monté c'est des équipes qui tournent. Mm-hmm. hôpitaux comme hôpitaux yenn hôpitaux yi <laughs> comme c'est pas Dantec ou bien des trucs comme ça, ou bien Fan, mm c'est des trucs qui doivent avoir des, c'est, qui doivent avoir tous les jours une équipe, c'est une équipe, ça qui tourne. Ni buñ jëlee 8 heures, wàcc 16 heures, ni jëlee 16 heures, wàcc ni jëlee 20 heures, nangam. mënuloo bàyyi euh, instant parce qu'on ne sait jamais. Mhm. <laughs> accident mën na am à tout moment Souleymane Niang voilà pour la dernière question cher je suis. cette expérience euh, d'ingénieur. Euh, bu yàgg ci liggéey bi est-ce que responsabilité pénal benn ingénieur bu defar wala maintenancier bu waroon maintenir walla euh, kenn ku ñëw intervenir ci réseau wala système électrique. def ci ay changement ay modification est-ce que ci sa expérience mosu nga gis koo xam ne responsabilité pénale am engagé wu na parce que dafa laal lii wala laal lale et cetera alors moi je vous dis tout de suite moi mon mm-hmm. sama sama sama sama sama xalaat ci loolu jot na léegi ñu auditer tous nos hôpitaux parce que mi ngi commencé mm. mm-hmm. techniquement il faut que mm-hmm. avec des bureaux techniques agréés ñu lancé leen ci hôpitaux yi dem audit yi audit boo ne audit fii les gens dañuy tiit audit mooy gis ni ngeen di liggéey est-ce que jaar na yoon c'est pas méchant un audit mm. ça te permet d'éclairer mm-hmm. audit c'est mm-hmm. mm. naa dem leen di jàppale pour cette cette installation yi lii kat gis naa ko ci lii baaxu ci lii ngeen war a defar léegi pour lii pour pour pour ngeen gën a développer lii ak lii ngeen war a def c'est ça un audit c'est pour vous éclairer. Hmm. voilà monsieur Sakho euh, léegi euh, li xew ci waawan euh, y a un an de cela pratiquement jour pour jour xew na fële ca Linguère muy ñaari incendie yow am def pratiquement les mêmes dégâts. tey jii j'imagine que ku am sa doom bu nekk ci euh, service yu demee noonu sa xel du dal lan démarche lañ waroon def tey est-ce que comme niñ koy defee comme avion yi bàyyi yëpp ci suuf ñu saytu xool lan mooy andi incendie yi walla c'est vrai que tamit loolu mënul taxaw mais tey jii lan la protection civile wala état bi war a def est-ce que dañu war a dem saytu service néonatologie yépp yi nekk ci dëkk bi xool c'est quoi le problème. voilà état bi balaa moo état bi mënul def dara te jox ñu ko situation installation. parce que enquête bi rapport d'enquête bu. parce que état bi ba. mooy audit bi ngay wax. état bi lu mën. Hmm. mooy vérifier leen ma lii lan moo xew ci sama installation ak lan laa war a def. parce que l'État c'est un organe de décision il décide su audit prouvé ni installation yi baaxul ñu defaraat installation yi su été prouvé qu'il faut des maintenanciers État bi ni bon il faut de maintenanciers à partir de d'un hôpital de cette dimension ou bien voilà c'est nu muy nu muy mais est-ce que tabax hôpital war nañu ko jox n'importe qui n'importe quelle entreprise. loolu tam su fekkee agence yi ñoo lancé woon offre bi. su fekkee c'est des agences parce que agence yi souvent voilà comment euh, les gens voilà comment ils travaillent comme l'AGETIP ou bien l'AGETIP quand ils lancent ils lancent appel d'offres mhm. et sur cet appel d'offres mhm. te disent est-ce que mos nga réaliser hôpital bu toll nii dañ mhm. la koy laaj bu ñu la ko laajee ñu ne foo ko foo ko foo ko defaree nga ne ko Médina laa ko defaree mën la ku la ko commandé woon ki la ko commandé su fekk état la demal mu bind la attestation pour ni la mos nga ko liggéey mu toll noonu te amu ci problème. Mm. c'est ce qu'on appelle les références. Mm. Mm. amul benn agence. Mm-hmm. yi nekk Sénégal fii lay joxal liggéey. muy AGETIP muy AGEROUTE muy euh, euh, l'agence de construction et bâtiment qu'ils ont mis sous le boisseau d'ailleurs ah. ce qui n'est pas normal. agence bi mm-hmm. doxatul. Ah, de construction des bâtiments et des publics. vraiment euh, voilà. je ne les vois plus dans le milieu. Mmh. Qui est devenu alors, que ñoom ñoom ils sont ils peuvent ils peuvent sauver ces parce que. Uh-huh. bi charge yi ci lañ ko créé moom. d'accord agence yooyu ñoom duñu la jox mu tant que amuloo expérience. souvent li ñu ci éviter mooy nit ñëw créer attestation parce que loolu da nga parce que uh-huh. moi je. falsifié uh-huh. ah, mais souvent on te demande. kan nga ko defar mën la TFM par exemple. ma ne ko mm. demal ci direction TFM mu bindil la. attestation liggéey na mës mës nga fi liggéey liggéey bu milliard. Mm-hmm. pour le compte de TFM. Mm-hmm. Mm. TFM du ko signal su ko liggéeyal. Mm. de toute façon enquête bi moom mi ngi mi ngi mi ngi wéy. incha allah c'est ça un peu ça le problème parce que toutes les procédures sont là. mais bon le problème de ces procédures là aussi. Mm-hmm. c'est que ils ont laissé les agences à côté. et ils ont créé des directions d'infrastructure mhm. résultat enquête yi bu soobee yàlla xam naa bu génnee dinañ euh, am visibilité ci li xewoon foofu ca Tiwaawan merci beaucoup. Euh, Cheikh Oumar Sakho ñu ngi lay sant di la gërëm a baax. je je suis pas venu ici pour polémiquer man. absolument voilà quand j'ai quand la radio. Mhm. j'ai dit non il est temps maintenant vu mon quand même. Mhm. ma intervenir. parce que lii. di dal ñi comme ça mën na dal sama sët. absolument mën na dal sama doom. mën na dal ñun ñun responsabilité. Mhm. on doit plus être inconscient. et Sénégal ça à nous tous. il faut mhm. que chacun apporte sa pierre. Mhm. parce que nous nous observons on regarde ah. te dëgg la merci beaucoup ah, Souleymane mi moo nekkoon voilà ci ci rajo bi moom nga doon waxal démb. te dañuy faral di wax naan dëkk moom bokk na ci ñi ko li ñi ko yàq mooy ñi nga xam ne xamuñu dara di wax. wala ñi nga xam ne xam nañu tuuti lañ xam di wax lu bëri wala ñu xam lu bëri te noppi. merci beaucoup Cheikh Oumar Sakho jërëjëf. merci beaucoup sant na gërëm la bu baax a baax dinañ am yeneen. je suis très content et puis je suis impressionné par vous. c'est la première fois que je rentre dans un studio. ah oui <laughs> on espère que ce sera pas la dernière fois. inch'Allah di nga ñëwaat merci beaucoup je suis à votre disposition. merci Jérôme Matamo jërëjëf. bonne euh, journée bonne journée léegi dañuy jàll ci l'observateur ak journal record li ñu xëyee tey jile <laughs>